TV xew-xew jamono ginnaaw bi ñu leen nuyoo ba noppi tey ci altine ji li gën a fees ci bopp xibaar ya ca diwaanu Mbour foofee ñuy wax Kirène askan wa fa dëkk mer nañu rango morso yu xonq wàcc ci mbedd mi leen wàcc mooy seen ndox ma ñu ni seen forage ñu bëgg a ci ci ñoom jox ko waa Aquatec ñu yoral leen ko dafa ñu jaar yëpp njombe leen fa toppe ñu ko tey ñu ko ëllëg dinañ ci teewlu eh, ceex na daaf ci diwaanu Mbour ak la ko wër lu jëm ci wàllu njàng mi ci daara yu kawe ji Cheikh Anta bu Ndakaaru faculté lettres ak sciences humaines eh, foofa jàngalekat yi tàmbali ñoo jóg bëgg na cours yëpp ñëpp tàmbali niñ ko defee ci yeneen bànqaas ndax ba tey boobu faculté njàng maa ngi fay sooxe moom la Pape naa la jéey di ñaawlu ci biir xibaar yi ak suñu naataangoo yi ñu fa yebaloon di xooxaan ndong lu jëm nag ci wàllu parti réew mi ak ba ñu duggee ci nguur gi parti bi Idrissa Seck fu muy mujj laaj bu samp te amagul tontu xëy na sa fiit siis dina ci indi ndax jot naa waxtaan wala mu saytu ci wàllu woowee ndax boobaak tey dugg na ci nguur gi ñu bari ñu ngay dem di ko bàyyee tey ndax dootul seey ba ñi mu amoon ci militant ak ñu ko bëggoon daal cee génn ba ko ak nguur gi mu àndal sa fiit Bintu sa lañ ciy tekk bu noppee euh, ñaareelu pàcc bi yàq Moustapha Diop ci kanam tuuti ñu yaatal xibaar dalee nag jàmm xibaar yi ci yaatal euh, ni ñu koy tàmbalee muy nekk ca Kirène askan ba dëkk diwaanu Mbour am jafe-jafe ba rango woon seen morso yu xonq góor a jigéen mag ak ndaw kenn desul ñëpp génn nañ li leen génne nag mooy seen ndox bi forage ba nga xam ne moo nekk ca dëkk ba ñu bëgg a bañ seen loxo jox ko waa Aquatec mit ñi fa ñu jaar yëpp ñu nga fay toj ñu ni ñoom duñu ci bokk te njiit réew mi sax daa dige woon ci forage yooyu askan wa ko seen bopp te dara fekku leen ca woon mosuñoo mar mosuñoo am jafe-jafe kon ko joxe tey duñu ko joxe ëllëg Ceerno Daaf dinañ ko ci teewluwaat eh, ci yeneen jotaay wala Ceerno Daaf noppi na Ceerno eh, Daaf egseegul kon ci yeneen jotaay xibaar dinañ ko ci teewlu ñu wax ci wàllu njàng mi ci daara yu kawe Cheikh Anta Diop bu eh, ma dooragul nañu ko bëggee ba jàngalekat jot na joo jóg di ci àddu ak ñi nga xam ne ñooy ndongay ni dañoo door fépp ci daara ji kon it ñoom nañ leen jox li ñu moom xaar bi la ñu fas yéeneetul Pape Nalla Dieye responsable la te plateforme bañ fa tegal di ab kuréel ak suñu naataango xoxaan référendum. ñoom ñooy le recteur de l'université ak euh, le doyen de la faculté ngir ñu ñëwaat ci seen ndogal boobu nga xamante ne jël nañ ko mooy bugg rek ngir faculté de lettres et des sciences humaines reprise graduelle am fi maanaam reprise boo xamante ne nekkul ñëppay ñëwandoo gis nañ reprise boobu nga xamante ne ñoom def nañ ko conséquences yi nga xamante ne jot na ko am parce que mbas mi bi mu ñëwee ay cours en ligne lañ doon def bi ñu reprendre aussi reprise graduelle la woon te gis nañ conséquences yi nga xam def na ko muy nombre important de taux d'échec boo xamante ni ren am nañ ko fii ci faculté bi donc reprise graduelle boobu suñ ko indiwaatee loolu mooy nañu buuxaat étudiants ngir ñu échouer suñ parents yi c'est n'est pas c'est pour rien que ñu ñuy feel depuis ñu nekk xale ba tey ñuy jàng dañ fi ñëw pour jàng pour réussir mais ñëwuñ fi pour jàng pour échouer te duñ nangu benn yoon suñu njiit yi vu que seeni doom nekkuñ fi faculté de lettres faculté de droit am reprise globale mënuñ nangu fasek am reprise globale fac e droit am reprise globale ñun étudiant fac e lettres ñu ne ñu reprise euh, graduelle ngeen di def pour lan parce que lan nombre bi faculté bi jël dafa bëri ren mais loolu ñun du si faute étudiants yi loolu ci faute état bi la le ban motif beneen la ñuy la ñuy avancé mooy que dañuy éviter mbas mi law ci biir université bi mais dès l'instant que ñoom ñu ubbi université bi rek mooy que ñoom bañuñ mbas mi law bañuñ mbas mi la parce que ku wax université wax la benn gox la boo xamante ni nit yi dañ fiy daje kaasuñ ngir bourse kaasuñ ngir logement li ñuy kaas nous revient de droit mooy le droit à l'éducation dañu bëgg a jàng tout court amul leneen quoi dañu bëgg a li ñu bëgg mooy reprise globale comme yeneen faculté yi. Euh, ci wàllu njàngi ba tey section atum 2020 jàpp 2021 ci concours recrutement yi nga xam ni élèves maîtres yi ñoo ca war a nekk juróom-benn téeméeri candidat bindu nañu toog di xaar ñu ni nag seen xaar ba dañuy bëgg a toqi ba tax ñu ngay laaj ñu jublu ci seen i mbir ndax centre ci bari ci biir réew mi gox-goxaan yi taxaw nañu ak seen list liste Ami Diop kenn la ca ñoom ak Fatou bint Diouf. gis nañu ne chaque année fii ci Sénégal concours crème bi bu ñu ko defee dañuy yóbbu nit ñi liste d'attente liste d'attente moo nekk liste bi ñuy wax ci olof dem leen ngeen toog xaar soit mën nañ leen woow soit mën nañ leen ñàkk a woo léegi nag ñun ci jeunes yooyu la ñu bokkoon ndaw yooyu la ñu bokkoon léegi nag entre nous si ndaw yi am na ñi nga xam ne atteindre nañ âge limite bi maanaam age bi nga xam ne mënatuñoo def concours crème bi maanaam muy 30 ans fanweeri at ci wolof léegi nag tey ñun dañoo taxaw fii monsieur président pour nga jàppale ñu ñu dem defi formation comme suñu morom yi ndax ñu mën a dem jàngale ci école yi parce que seetlu nañ fii ci Sénégal école boo dugg boo limee benn ñaar ñetteel ba classe boo gis benn enseignant day jàngale ñaari classe soit nga yor CI ak CP wala C1 ak CP mu nekk jafe-jafe yoo xam ne enseignant yi yu koy dund métti na lool développement réew mi rek moo ñu ñor te gis nañ développement dafay commencé ci tout tànk yi moo nekk ca école primaire bi ba nga commencé jàngale ci ngay commencé ñu lay jàngale lan moo mën a développé sa réew sa réew loolu rek moo ñu tax a jóg ñoo lay ñaan nag dellu di la ñaan di la ñaanaat ñun ñi nga xam ne ñun ñoo dem liste d'entretien muy option français du option anglais di option arabe nga jël ñu ñu dem jàngale ji defi formation comme ñun ñëpp ci wàllu politique la ñuy jublu Déthié Fall gannaaw bu mu wanee parti Rewmi bu Idrissa Seck gannaaw ndax day ñàkk palug député am déetewaay bu ñu sukkandikoo ci avocat maître Abdoulaye Babou moom ci fàttal nekkoon na ancien président bu commission loi ca pencu ndaw réew ma ni loolu xam na ko bu baax ndax nag ab coalition moo ko fal bu doon parti ca la faloo kon mën na koo ñàkk te pencu ndaw réew ma la ñu fa xaatim amul ci jëmm coalition kon nag Abdoulaye Babou jokkoo na ak mbiru Déthié Fall dañuy fàttali rek ni moom ci coalition la ñëwee assemblée coalition boobu ñu ngi ko tuddee xaw ma taxawu Sénégal ci sama gis-gis kaawu Déthié Fall wuute na ak kaawu député boo xam ni benn parti moo ko fi indi ma jëlaat ko su dee benn parti moo choisiroon un député pour mu falu assemblée nationale su falo assemblée nationale règlement intérieur assemblée nationale bi def ni député boobu su démissionné ci parti bi ko indi day perte démissionné na mais su dee partie bi nag moo ko dàq day garder mandat loolu yomb na kon leer na démissionné rek ngay perte sa mandat su dee parti bi la indi wante léegi su dee coalition moo la indi comme kaaw Déthié Fall man sama gis-gis laay wax dama ni su ko neexee génn ndax ci yoon coalition amul personnalité juridique ci yoon benn ko alors léegi beneen xalaat député askan weeko fal kon nag ndegam askan weeko fal député du peuple la benn parti politique man ci sama laa wax en droit amul droit ni kon dama lay génne parce que du parti ko fal réew mee ko fal su la réew mi falee même soo xooloog sa parti man ci sama gis-gis waroo génn loolu nag sama interprétation la mais li wóor ba wóor c'est que ñëwaat ci kaw Déthié Fall man sama gis-gis am na droit génn coalition bi créer parti mais su dee attaqué nañ ko ñoom maanaam fa mu jóge waa réew mi su dee attaqué nañ ko am na lu yoon wax ni ko su ko neexee na attaqué dem conseil constitutionnel nationalité loolu am na ki droit ci sama xalaat su defee loolu dana am ndam kon kenn war ko mën a génne ci sama xalaat. Déthié Fall gannaaw ba mu wonee parti Rewmi Idrissa Seck ci dimanche ji ba fesal ab partem di parti républicain euh, pour le progrès boobaa tey nag euh, suñu rédaction fii ci Walfadjri euh, wat nañu fukki at ak juróom-benn yi nga xam ni Déthié Fall def na ko politique nekk ci wet sa Seck yaay Adama Diallo moo ci dellu si waat ak lam fa jot a jaar. ingénieur polytechnicien. am lijaasa bi ñuy wax MBA de l'UCAM nekk ceinture noire en management de projet complexe et stratégique XL def formation militaire ca ENOA nekk manager et industriel boobu léegi mu toll ci ñaar fukki at ci secteur privé li ñeewal parcours politique am daal dinay dooree ca parti réew mi ca 2004 ba 2020 2017 mu daal di nekk député ca pencum ndawu réew mi moo ngi tàmbale ca réew mi nekk membre fondateur nekk itam militant simple daal dina fay nekk tam président des cadres du parti nekk na fa itam directeur des structures du parti lu ko dalee 2014 ba 2020 mu daal dee nekk vice-président bu parti réew mi mu nekk poste buñ mu di jël ci ay loxoom ginnaaw ab intervention bi mu defoon ca pencum ndaw réew lu ko dalee ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weerum novembre ca bañuy voté budget bu ministère de l'agriculture et de l'équipement rural muy ñaawlu rek gis-gisu président de la république bi nga xam ne jam ñaajo la yam muy sàkku rek mu lawal ko ba ci vallée du fleuve Sénégal ak fi ñuy wax Anambé bi la gis-gisu Déthié Fall taxoon na bañ jëlee ko ci post vice président daal di koy jox poste secrétaire national chargé du développement industriel mu nekk post bu mu daal di dëddu ginnaaw juróomi weer mu def patt kii di Déthié Fall daal dinay génn ni ki dimanche bi daal dee dellu si si nekkinam ca parti réew mi mu xamle rek yëkkati ay kàddu dëgg tax na ba nekkin bu mu amoon ca réew mi daal dee am coppite ba ñu jëlee ko ca poste vice président ba mu nekkoon bile mbir nag waral kii di Déthié Fall daal di jël yoonu boppam daal di créer parti yoom boppam ñu fàttali kii di Déthié jot na nekk ci opposition bi da nekkoon na ex membre de Gossas Waxja ex membre de Saint-Van cadre de concertation de l'opposition nekkoon na itam ex-membre de Manko Wattu Sénégal nekkoon na itam coordonnateur du front de l'opposition à la revue du code électoral de 2020 nekkoon na coordonnateur du pôle de l'opposition au dialogue politique 2019-2020 itam nekkoon na ci front national de résistance ñu des ci parti Rewmi ak beneen laaj sa Seck gannaaw bu mu duggee ci nguur gi mburoog soow ndax partem boobee ak suux jum fa suux du ko indil ay militant wam wala ñu bëggoon boobu le parti wan ko ginnaaw laaj la ak Safiatou Cissé ñu xool lu muy am. Déthié Fall doonoon ki ñu toftal si ginnaaw sa Seck won na ginnaaw ba faw li di parti Rewmi mu ñëw dolleeku si lim bi fi nekkoon di limu responsable yi nga xamante ne ñoom ñoo woon ginnaaw ndamal Kajoor si jëwriñ yooyee ñu mën see njëkkee u Sarr moom mi nga xamante ne mu ngi woon ginnaaw sa Seck gannaaw ba mu jëlee kii di Déthié Fall defoon ko numéro 2 bu parti fal boobe ñu ko faloon sax ñu bëri ci biir parti réew mi doon ko nakarlu ku ci mel ni Oumar Gueye Pape Diouf Youssou Diagne doonoon ancien numéro 2 bu bi lépp formation orange maître Nafissatou Diop sa ginnaaw ga ñu nemmeeku kii di Thierno Bocoum docteur Abdourahmane Diouf Adama Mohamed mbay nekkoon coordonnateur communal bu réew mi jam Diamniadio ba si kii di Badara gajaga ñoom tamit ñu tekki seen ndombal tànk si parti bii di parti réew mi bokk na nag si li ñuy ñaawlu jege bi nga xamante ne kii di seen président Idrissa Seck jege na ko ak Macky ba mu tabb ko njiitalu CSE it Idrissa Seck seen jiitalu parti ba woon lëkkaloo boobee jural meeru Thiès ba woon mu ñàkk ay kàngam yu nekkoon ci biir parteem fii ci Sénégal ak ci àdduna wërngal këpp lëngoo boobee sax moo sookewaat tasu coalition Idy 2019 ca Jidda Caaroy kaw moo Niass bu parti démocratique fësal na ak dugg ci biir politique ci njeextal ayubis gi waaye tamit wax na ci kaw Karim Wade ak xalaatam bu dee tak yëngu-yëngu yi amoon fii ci Sénégal ba mu ñàkk seen bakkan nit mu ngi koy ñaawlu ni yoon na ci def liggéeyam te Théodore Semedo moo ñu fa teewaloon. mu ngi xam ne ñoo fare ci parti démocratique sénégalais bu diwaanu Jidda Caaroy kaw nee nañ du ñu nangu tey du ñu nangu ëllëg ñu daal di jox kii di Karim Wade nekk seen candidat en 2024 armistice nee nañ daal dañu war a réviser procès. section ji de Kaarako lu mu xamal mooy candidature Karim Wade kenn du ko négocier kenn du ko yelawaan lu nekk la te léegi mu ñëw loolu lañ amoon pour wax leen di préparer renouvellement si jàmm. ñoom ba tey yëkkati nañ seen kàddu. di wax nañ andi leeral dal di ubbi l'enquête ci nga xam ne ñoo faatu ci fan yi ñu génn gannaaw bi nga xam ne dañ doon manifester bu ñu jàppee kii di njiitu parti Pastef Ousmane Sonko. tey Djidah Kaarako moo woote section moo woote li tax mu woote d'abord ñi nga xam ne dañoo génn àddina di leen masaw di leen bi mu daal di def enquête pour ñu situer les responsabilités di leen jàll. mbirum renouvellement wu jaayum carte ci biir PDS ak élection bokk moomeel yi doon nañ ko fi waxtaanee gannaaw bi nga xam ne dañ doon mail d'information fekk benn responsable bu ñu wax Mor Niass doon def rentrée politique am. parti bi dafa am lu mu santaane muy dañoo war a toll ci yeesalaat bànqaas si parti yi ñu digle ni fépp fu waay nekk maanaam seetiwaat militant yi ànd ak ci ñoom liggéey bi loolu la ñu parti bi sant. boo gisee ma woo leen mooy dañuy dem si renouvellement renouvellement nag mooy parti bi day yeesal ay bànqaasam ndax taarixu politique dafa wone parti dem renouvellement yëpp dañ fa jógee ñoo tas non ay doomu ndey lañu kon renouvellement bi dama bëgg ñu aborder ko di jàmm duma ko fi nekk jël mairie bi donc tey li ñu leen di ñaan mooy militant fu mu ne ou militante mooy lu jiitu d'abord bindu ci parti bi su fekkee bindu nga ba pare nga